yow yaa nekkoon tête de liste euh, naturellement benn député ngeen am euh, yow yaa dem à l'Assemblée euh, nationale un deux mois après dafa mel ni coalition bi tas na en tout cas ku ci nekk jëlaat nga sa liberté principalement Abdourahmane Diouf li may waaj a wax du lu ma moom moo ko waxal boppam nee na ci législative yi moom dafa maye cër daf may cër amoon na mënoon na prétendre diriger coalition bi comme ni ko ñeneen ñi mayee cër mu ne bi ngeen paree ci bilan bi ngeen di def bilan il vous a invité à parle à, à évoquer lu choix du candidat à la présidentielle sans doute que moom il s'attendait bi mu lay may cër et ça c'est mon commentaire bi mu lay may cër sans doute que il s'attendait à ce que aussi bu ñu duggee ci présidentielle yow nga may ko cër Euh, ñu jox ko euh, loolu nga xam ne moom mooy euh, candidat candidature am et na loolu moo tax mu opérer un retrait au niveau de cette de cette coalition là lan ngay tontu ci loolu. non ma ci tontu parce que d' abord Aar Sénégal pour votre information démb waroon nañu réunir. man Théodore Cheikh Oumar Sy ñoo ndogandoo kër ga. ñu waroon ngeen mais sans ju juge dem dama lay jox information. moom moom ngay c' est c' génn na c' est officiel. donc y' a y' a pas le feu. damay wax ni da ne ñeneen ñi ku nekk ngi ci si activité foofu laay leeral pour informer sénégal yi. may wax dama leen déglu attentivement moo <laughs> bu ne moi je suis capable de d'expliquer lu ma ci d'accord d'accord naa lu ma ci lu loo loo xam ne je suis obligé parce qu'on ne pas parfait hein on fait des fautes on fait des erreurs on fait des trucs donc lu ci jaarul yoon aussi dinañ ci tirer conséquence reconnaître ko jàll contrat boobu lañu am ak Sénégal yi démb waroon nañu réunir nañu sax juge Deme mu ngi woon. après donc yow juge Deme Théodore Monteil Thierno Bocoum ak Cheikh Omar Sy. Cheikh Omar Sy. donc y a Abdourahmane qui a quitté donc. ak euh, Marème Soda ak Marème euh, la réunion a parce que ci plateau yi nii Thierno Bocoum dafa dem ci. benn plateau beneen du dem dem benn plateau mais di ngeen ñu déggaat ci fan yi ci kii donc par rapport ak nag li ci des. yaa ko wax sànq on avait une très belle coalition ku nekk mënoon na jiitu il faut am ku jiitu wax jooju vraiment lu tax ñu jiital ma te mënoon na jiitu walla Théodore jiitu wala juge dem jiitu kooku ñun ñu ni suñu biir la je le je le renouvelle y compris moom je renouvelle ma gratitude du ma taxaw nag Sénégalais yëpp ne leen on avait une belle liste Abdourahmane Diouf lii la def def campagne wax ci moom yu bëri yu baax di fi nekk di wax leneen du ko def on a toujours une belle coalition am na lu bëri lu ñu war a mën a def liggéeyal Sénégal ñoo ngi ciy jéem a dem. mais xam nga Thierno aussi la vérité man j'ai suivi un peu euh, seen euh, mise en place coalition boobu la vérité mooy à un moment donné les choses allaient capoter. ci la Abdourahmane nangu opéré retrait bàyyi la yow nga nekk tête de tête lan moo tax moom après avoir fait ce sacrifice là euh, ngeen bañ a évoquer le choix du candidat de la présidentielle alors que xam ngeen ne xel moom xëy na bi muy mayee cër doona doon am yaakaar bu la jiitalee législative présidentielle yéen ngeen jiite ko jiital ko dama ni kooku version la te duma ci àddu mais joxeel sa version. non du ma joxe sama version. parce que da nga war a joxe sa version parce que moom joxe na version. publiquement non encore une fois. chacun de nous même ki ñu jiitaloon man mënoon naa toog ba mu yàgg ne coalition bi doyatuma mais mu man mu ñu jiitaloon signé wuñu contrat ni ñëpp on est obligé de rester dañu war a des fii ba présidentielle wala ba gannaaw dafa leeroon loolu. te nañu régler législative bi bu ñu paree législative yi bu fekkente ni mun nañ dem présidentiel ensemble parce que guleet ñu ànd xamantewuñu ci suñu biir miinante am na ñu ma ci miin xam leen am nañ ci ñoo xam ne miinuma leen xaw ma leen donc am nañu njort ni war nañu mën a ànd ànd gu rafet bu ñu paree ñu càmbar saytu xool ndax dañuy yokk wala duñu yokk ñun ñu yaakaar ni loolu ba tey ñu ngi ci des te def naa ni foofu la lim bi ëppee ñu ngi fa. mais pourquoi ngeen refuser bon. aborder la présidentielle alors que on est à moom il a voulu ngeen aborder question bi c'est sa version bu ma fi ne woon nag di wax yeneen ak yeneen peut-être sax man dig ma sénégalais. mais qu'est-ce qui s'est passé euh, sans pour autant. bu ngeen bu ngeen ko gisee ngeen ko ko laaj mais demeewul noonu et puis on passe quoi. xam nga quand xam nga quand Abdourahmane Diouf que moom Rufisque il avait de remporter. ñu tourné question bi d'une autre mais mbokk Rufisquois bi. yàgg naa fi ñëw léegi yëpp léegi mën naa ko mënoo yàgg naa fi ñëw bu ñu ñëwee ci centre de vote bi e gisuñu photom donc loolu moo tax gars yi voté lañu ko mu mel ni en filigrane dafa Abdourahmane Diouf dafay jéem a wax ne moom il a été plus généreux que yow. parce wax bi man gëw ndax. Thierno Bocoum Cheikh Omar Sy juge dem Marème Soda Ndiaye wala Théodore Montey ñoo ko moom man dama jàpp ne divergence bi entre yow ak Abdourahmane Diouf la. mais mais kii il faut pas quand a été plus généreux que yow. il faut pas il faut pas néewal ñeneen ñi Théodore était député sortant. non néewaluma leen de Abdourahmane ci ni mu waxee dafa ne ñooñu dañ ko may cër. waaw dama dama lay tontu. néewaluma leen de c'est yow da ngay poser question te ñemewoo réponse <laughs> non <laughs> néewaluma leen bu commencé rek nga <laughs> bon Théodore député sortant la woon tête de liste la woon ci liste bi ko bi ko faloon en 2017 mu am humilité ñëw ne. damay dem tête de liste départementale de Kaolack avec zéro chance de gagner mu def ci investissement physique matériel financier bu doy waar man def naa campagne ak moom benn ngoon ak benn guddi Kaolack fanaan naa ak moom Kaolack gis naa ni mu mobi équipe bu mu mobiliser woon coono yi mu ci doon taj ci fànn yépp nag après kenn déggoo ci ko ci parce que d'abord on se on combat pas pour nos petites personnes pour être député pour man bu doon nekk député rek j'étais ministre de la République Théodore était député juge Mariam Soda était député juge il est il a accepté d'aller tête de liste départementale bu Thiès avec des chances faibles de l'emporter mais loolu un homme politique da ngay joxe modèle ak exemple j'estime qu'ils l'ont fait deuxièmement man je fais partie man j'ai l'habitude de perdre des élections loo xam ne dañuy dem ba élection deux mille quatre euh, euh, vingt deux yi mais deux cent voix lañ ma gagné suñu commune deux cent voix on était parti seul mënoon nañ fa nekk di xarabante di et cetera et cetera mais dañu nangu ñu dogalu yàlla la di nga wax ne bu ma demoon ànd ak diw bu ma bu ma nangu woon alliance ak diw wala bu ma diw deful woon lii mais dañuy nangu nii à la fin des fins on a fait une très très belle campagne à Thiès ñun je pense qu'on avait fait la meilleure campagne parce qu'on était seul ànduñu ak benn liste face à des coalitions bu ñu mënee am résultat boobu c'est qu'on a fait une bonne campagne et a avait l'espoir mais ba ndagale yàlla bi jox kii ne man maay fale jox naa ko diw dañu nangu reprendre. Et je salue au passage Idrissa Seck. Personne ne pensait qu'il était déboulonnable à Thiès. Dans cette commune-là bu ñu bokk ñun moom mu ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu jiite woon ko jiite woon list yi proposer liste moom ñu ak yi kenn xalaatul woon Yewwi dinañu jiitu dinañu jiitu ñun wala jiitu ko ñoom mais il a été grand dans la défaite. nekku fa di def ay chasse aux sorcières ne jatara yow la wala ah, Ibrahima Ba yow la wala nangam nangam on a cherché oh il n'a cherché aucune man même dans euh, chez celui avec qui je suis pas d'accord je sais qu'on n'est pas d'accord maak Idrissa Seck mais pourquoi je parfois je le respecte parce que même dans l'adversité il peut rester élégant il a toujours été élégant avec nous loolu laa xam ku ma woo ci leneen duma la ci topp <laughs> bay laa yow mi din